ci àddina dëkk boo dem am na luuma tous les mm. samedis wala les mercredis ça dépend du jour dañuy ñëw déplacé wu de ville en ville de quartier en quartier vraiment euh, pour mën a jaay li nga xamante ne ñooy seen ay bagages mm-hmm. man ba ci waa Passy man sama maam waa Passy la dama daan gis ñu jugee Bandoulu ñu jugee Sokone ñu jugee euh, euh, Kaolack ñëw parce que di def luuma mu am échange boo xamante ni li mu mën a jur dafa dafa am doole ci li nga xamante ne nag mooy économie réew. parce que tey kii luuma bu ñëwee am dara jox jabaram jabaram jël ko dem ci borom salon bi. Euh, maanaam coiffé wu borom salon bi jël ko dem ci jaaykatu euh, kii defar lal menuisier bi euh, jënd si loo xamante ni maanaam coiffeuse wala whatever kooku jël ko fayal doomam jàng maanaam dafa war a nekk benn chaîne boo xamante ne bu ñu ko dogee amaana. moo nar a gën a metti li nga xamante ne mooy corona bi. dëgg la important xam nga ndax. Euh, fi nga dugg nii mu jëm ci wàll luuma dafa nekk loo xam ne tey du lu nuy xeeb ci réew réew day am fu muy toll foo xam ne mhm. doo bàyyi benn bunt mhm. te Sénégal dafa toll foofu mànd ak damor gis nga ñi nga xam ne tey ñooy def luuma balaa ngay xam seen njariñ tey ñu tëbal leen mhm. ba bis yi nga xam ne ci lañu waroon a jaay jaayatuñ ko nga dem waxtaan ak ñoom ku ci nekk ci ñoom nga fëgg ko laaj ko bu mësaan a jaay alxames bu jot wala bu masaan a jaay sand bu jot li muy am ci revenu li muy am ci bénéfice bu la ko waxee da ngay bàyyi àddina mm-hmm. barke Sëriñ Bamba Mbàkke mm-hmm. nga calculer ñoom ñëpp seen ay bénéfice li muy yokk ci économie réewu Sénégal mm-hmm. waxuma la économie réewu Sénégal ñoo ko bokk ñu ñëpp waaye personnellement individuellement ku ci nekk tey sa dund semaine yaa ko daan jëlee ci jeudi ba jeudi la ngay jaay mhm. ñii samedi ba samedi la ñuy jaay am na ci ñoo xam ne buñ jaayee tey balaa ñoo jaayaat bis boobu bu génn duñ jaay mhm. ndax muy seen bis mhm. te la ñuy soxla yi di koy téwoo di ko jaay duñ ko am feeg bis boobu jotul ñooñu tey feebar tegu ci seen kaw metti ba dajaloo bi war ci suñu diggante ak ñoom muy ñoom vendeurs yi ak seen i client mënatuñ ko lu metti la lu metti la lu metti la maanaam ak dabur moo tax liñ ciy ñaan rek mooy euh, nguur gi jëm ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy sunu nawle yi nga xam ne ñi ngi ci marché luuma yi mhm. te amuñu lu dul ñun daane seen doole ngir yóbbul seen njaboot dundal seeni doom ak seeni i wayjur ak seen i mbokk ak seen i jarbaat ak seen am di jàpp dëgg la nanu leen bàyyi ñu liggéey mhm. ñu xool distance bi ñu mën a utiliser ba liggéey parce que affaire bi euh, maanaam damu tollu na foo xam ne waratuñoo tere kenn dara waaw mhm. mbir mi moo toll foofu waaw mbir moo toll foofu fi mu toll fi mu yegg mooy feebar baa ngi fi nanu fexe dund ak feebar bi. dëgg la xool li man a nañu def ko. dëgg la mooy lan barab bu mbooloo di daje. buñ dee jël téeméeri nit ñu naa ah, kat sëñ bi ngeen baal nu ñëw leen. Mm-hmm. ñu ñëw toog ah daan leen leen nangu seen i téeméeri nit sans problème. Mm-hmm. tey feebar tàbbi na sunu biir téeméeri nit yi mënatu a ne. Mm-hmm. jël leen juróom fukki nit. mayante leen espace dandante leen bu kii toogee nii nekkee toog nële. ñu respecté ko ut ay vigile wala ay GMI wala ay policier teg ko ci seen kanam ñu surveiller leen. dëgg la ñu bàyyi leen ñu liggéey. bu ñuy ñëwee samedi bii ñee ñëw samedi ba ko topp. ah jéeri dafa mel ne tey li Emoro euh, mm. euh, euh, a naa damay te tëj dañ jëm. Mm-hmm. ndax li ëpp ñoom bu ñu defee rek ñu def loolu je pense que xale <laughs> di def. waaw ñun moom dafa mel ni réew waaw dafa mel ni tubaab bi la ñuy la ñuy dundee ba tey dafa mel ni buumu jaam yi dogagul te buumu jaam yi dafa war a dog nag ndax wax dëgg yàlla sunu maam yi def nañ sunuy papa def nañ sunuy mag def nañ mhm. kon gis nañ gis nañ loo xamante ni si Sénégal tey jii tubaab yi ndaak ñooy ñëw fii si Sénégal di jël si sunuy sunuy bagage di yóbbu si seeni réew xam nga kon ñun dañu war a gëm sunu bopp mhm. xam ñooy kan te nag coronavirus bii nga xamante ni si nii dafa dugg ci ci àdduna bi nañu xam ni lu yàlla dugal ci àdduna bi la comme comme comme tuberculose comme euh, euh, nu ñu koy waxee siburu bi ah comme siburu bi comme peste bi comme leneen ak leneen ak leneen te defe naa ne nag nit ku nekk sa bakkan bii kenn gënu la koo bëgg tout à fait vraiment ñii luuma yi nga xamante ni nag arrêté nañ ko te arrêté wuñu car rapide yi élèves yi ñi ngi jàngi marché yi ñi ngi ubbi nañ waxante dëgg ah, ah. nañ waxante dëgg ngente yi mi ngi am dëj yi mi ngi am ceet yi mi ngi am lépp a ngi am pourquoi ñu tëj luuma yi te ñooñu loolu lañ am pour dund mhm. ah da nga leen ni romb marché mercredi bi nekk Gueule Tapée da ngay romb mercredi bi passé romb naa fa fekk leen ñu tëj affaire bi mais da nga gis pa père de famille yeeg mère de famille nii lañ toogee jaaxle sa ngéemlu mhm. loolu dafa triste mhm. Macky Sall na jéem a xool nu muy wutee solution ci affaire bii nii te nag ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy sénégalais yi ñu jéem a vivre avec le coronavirus parce que demagul c'est parce que doole yemul li nga xamante ne arrangé na waa Europe Euh, arrangé waa Amérique peut-être ñun duñu arrangé parce que doole yamul astu euh, te fii taaba taaba xam nga ne mm-hmm. moo tax kër yëpp di mu kër yu bëri di dund mm-hmm. tey sëy yaa ngi tas mm-hmm. tey maanaam euh, ñàkk bu yàggee ci li nga xamante ne mooy famille je pense que mën na mën na sax tas famille bi tey lan nga nga xalaat effectivement bax li ñu wax rek lu ñëpp waxee dëgg tey son excellence monsieur Macky Sall dafa am lu mu wax mu ne comme mbas mi ñëw na te bett nañu te kenn prévoir ko woon donc te xamuñu kañ la fi jógee faut apprendre à vivre avec dund ak moom mais dund ak moom comment je pense que ni bu fekkee ne que dañu war a dund ak moom dañ ko war a def stratégiquement cest dire que man munuma gëm ni que peut-être moyen amu fi ndaxte par exemple bu ñu nee tey benn stade dañ ko war a def ñu ne benn stade boo xam te ne dañ ko copier Russie wala nangam ak nangam wala benn benn euh, infrastructure bu mu mën a nekk bu fekkee ne que moyen bu mu laaj si c'est des milliards dañ koy déployer def ko bu nekkee dañu am programme am ay gan yu jógee yeneen réew bu ñu ñëwee fu ñu la war dalal dañ dañ koy lijjanti def ko même bu fekkee ça coûte des milliards. tu parles de priorité effectivement important. de priorité très bien donc gis nga dans la vie il faut savoir lan mooy priorité ak lan moo dul priorité mhm. c'est-à-dire que on on nous demande de vivre avec la maladie on est d'accord parce que actuellement je pense que euh, Sénégal yëpp yaakaar naa ni que donc tout le monde est conscient que euh, li tout ni euh, mbas mi feebar bi ça existe euh, bel et bien mhm. ce qui fait que tey sa nga too romb sax xale bu ndaw da nga koy romb mu jàngi sax nga takkal ko masque fas fii takkal ko mu dem kon ça veut dire que ni actuellement ñëpp xam nañ ni que corona bi am na et que ñu ngi respecter les mesures barrières mais il faut encore une jàppale population sénégalaise bi parce que ñun dañu war a xam ni que gis nañ seen loxo gëtu seen ginnaaw moo ëpp foofu ñi nga xamante ne tey mën nañ demal seen bopp ce qui fait que tey ji comme li Omaro wax rek buñ nee tey wàllum jàng wala ci marché yi nañu aménager ay ay kii yoo xamante ni c'est-à-dire que dañ koy def mu nekk ay euh, je sais plus comment dañuy teg ay marché wala ay yoo xamante ni par exemple dañ koy gën a aménager moo xam yeneen bërëb bu ñu ci yokk fu doon jël tey benn cent jël benn cent ñu def hmm. benn cinquante personnes wàññi ko xam nga jox ay ay yoo xam na ngeen accompagner ñu liggéey parce que tey boo xoolee ceux qui travaillent pour leur compte personnel c'est-à-dire ceux qui sont dans le secteur euh, euh, euh, kii comment dirais-je encore informel ñoo ëpp fuuf sax ki ñu nekk ci secteur formel bi te ñoo gën a gën néew doole te ñoo gën doxal économie réew mi parce que ñu ngi fay juuti ñu ngi fay ay place nañ tamit première vague bi vraiment marché yeeg yëpp maire yu bëri dem nañu désinfecté ay quartier désinfecté ay école mais dafa mel ni dafa am tuuti relâchement euh, ci côté ci côté ci côté autorité yi te tamit euh, ma bàyyi la nga wax ma la mooy sa xalaat ci marché luuma yi nga xamante ne tey vraiment clendé nañ leen defal parce que suñu ay frères sénégalais la te ñoom tamit dañuy daan seen ay doole effectivement ndax déjà pour commencer ci luuma yi xam nga dañuy euh, bu ñu xoolee d'habitude ñiy def moom mooy dañuy faciliter benn population benn parti population bi pour ñu mën a am accès ci denrées alimentaires yi ñu nag mu gën a yomb par rapport ak ñi nga xam ne tey bu ñu bu ñu jënd ci supermarché yi la ñuy dem wala ci yenn grande surface yi mm-hmm. kon tey bu ñu demee nga xam ne sénégalais lambda carrément quand parle du Sénégal la majorité franchement yoruñu seen loxo jotu seen ginnaaw kon dafa nekk population boo xamante ne ñoom tey pour ñu mën a am lu ñu dundale seen jaboot suba suñu xëyee foog ñu dem foofu yow nga tëj loolu kon léegi ñooñu sonal nga na naka la ñuy def ba dund man je l'ai dit la dernière fois nee naa leen feebar bi mu ngi ci réew mu ngi ci dëkk bi li ñu mën a def une chose la mooy sensibiliser population bi éduquer population bi comme ça ñun dañuy dund ak moom respecter les gestes barrières parce que léegi ci élément bi am na benn allemande bu koy wax nee na en Allemagne par exemple ñoom bu ñu takkul masque dañ leen di jàpp ah yóbbu leen en prison mais fii au Sénégal da ngay que la fois passée je le disais mais nit ki balaa ngay takk masque parce que seen nga gendarme boo seenul gendarme doo takk masque da ngay dugg xew yi ñu ngi am ba tey buñ lu ñu tëj tëj tey tëj yi tëj restaurant yi tëj boîte ñaa ngi ngénte ñu ngi takk ñu ngi dëj ñu ngi rassemblé wu seen biir kër yi dëgg la mm. anniversaire gars yi ñëpp a ngi fêté tout donc c'est en fait benn instant da nga naan dafa am euh, comme ni ko sénégalais yi wax euh, kumba am nday kumba amul nday il faut qu'on revoie les choses sénégalais simple ak sénégalais plus mm. merci wax nga dëgg cëm man daal merci bi dam vraiment man tey tey Bella gis nga ko tey gars yi fu leen neex nañuy fëlee waaye nag euh, lii nañuy wax nee naa leen Bella ëpp ñu fi xel kenn mm-hmm. waaye nag li nga xamante ne la population bi di ñaxtu ñu buñ si jotee rek dañuy wax tamit suñu ay xalaat pense que euh, tey war nañ la mën a dégg. te ñi nga xamante ne maanaam ñooy takk masque ak ñi nga xamante ne ñoo takkul masque ak ñi nga xamante ne vraiment tey loxo jotul ginnaaw ils sont obligés de travailler ñu ne leen déet lan nga ci xalaat. gis nga ndax euh, misaal mi mën naa bañ a sori ndax ku nekk sa bopp dooy na la misaal. waaw ndax euh, nit ñi dañoo wax xam naa wax waxaat sax lu bari wax. mais na nit ñi waxati rek. Mm-hmm. parce que mënuñoo wax lu ñu waxul woon. c'est parce que dafa am yoo xam ne dafay gën a ñor. Mm-hmm. ñu di ko aaye nit ñi. Mm-hmm. te li ñu war a aaye nit ñi dëgg aaye wuñ ko nit ñi. dëgg la parce que mënuñu wax ndimbal ndimbal ndimbal ndimbal. population Sénégal kenn kenn kenn leen a dimbali mënu mënuñu leen dimbali parce que mm-hmm. ñi new doole dañoo bari. bari te doo topp mën leen a dimbali. mais faw nga bàyyi leen ñu daan seen doole def nañ daan def ndax nee nañ feebar bi nañ dund moom mais nañ bàyyi nit ñi ñu dund moom. li ñu war a tere. mi ngi ci réew mi ay yu luuma yi ñuy tëj jaru ko. Mm-hmm. marché yi ñuy yi ñuy yi ñuy tere nit ñi mais day ndax njaboot su xëyee day dem am na ñoo xam ne bu ñu xëyee day ñuy dem jaay door a jox seen njaboot ñu ñu lekk dix heures onze heures ñu jox dem marché jox seen njaboot ñu lekk mais da ngay gis ku tànt ngénteem fii kenn aayewu ko dara ku tànt réception fii kenn aayewu ko euh, dara te heure couvre fa ñëpp daw ñëpp daw ñibbi des fois nga jàpp nit du takk masque connaissance la doo ko jàpp doo ko yóbbu fenn mais ki nga xamante ni nii dafa néew doole ki nga xamante ni loxoom jotul ginnaawam ki nga xamante ni dafay daw jaay door a lekk ki nga xamante ni nii faaw mu xëy jëkkëram tës tësi mu door a lekk wala doomam génn dem tës tësi mu door a lekk léegi nga xañ ko lool loolu mooy bu lekk bul bul naan jaboot kenn mënu koo dimbali jaboot bu jaboot dafa naqaree dimbali da nga koy bàyyi mu takk ndiggam dem daane dooleem def na mu daan def ñu déem a dund ak feebar bi respecter les mesures barrières mmh. mais li ñu war a wax duñ ko wax li ñu war a def duñ ko def gis nga yuuxu ci tool dàq na picc waaye ñoranul dugub. waaw si si. Amaro mën ngaa xam ne mën nga ne si boo taxawee ci tool bi non non boo taxawee tool bi di yuuxu ah. bu picc tagee dafay daw waaye taxul dugub ji ñor kon nekk fi di leen tere di leen tere te mënoo leen dundal loolu amul sens feebar bi mi ngi fi am na ku ne xam na ni am na te dafay rey mm. loolu nit dofaalewu ko mm. nañu takk suñuy masque di raxasoo ak gel respecter les mesures barrières te ñu bàyyi nit ñi ñu dem marché yi ñuy tëj yooyu am na leneen lu ñu war a mën a tëj lu dul loolu mënuñoo dimbali nit ñi ba xool ndimbal gi dafay féete côté dafay jéng nañ ko waxta dee nit ñi war a jot a ci ñu ah. ne dara ko mën a wax dara mu dégg mi ngi noonu moom balaa mën <laughs> ah, euh, tour de table je pense que neex na suñu deuxième thème nañuy aborder mais yoro balaa nga may may yeneen ñaari son bëgg naa nga wax ma tey ci mbirum woor yow wéykat nga te nee nañu maanaam euh, li xew ci télévision yi li xew ci mbirum showbiz bi lekkante gi wannante gi xam nga yàqante bi ba ci <laughs> internet bi nit mën na wax xalaatam mais de fois day bind da nga gis commentaire ñu naan la na rafet na rafet muy am ñuy ñuy ñuy modéré mais nit fu mu jotee lu ñaaw rek sànni est-ce que loolu frustration la